بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احفري لنا بهذا المحضر وتعته بنظرة تأتي لنا بظهر الحديث السابع juróom ñaareelu xadiis li imaam annawawi baax na annawawi baax na rahmatullahi alayhi nee na an abi ruqayata jëlee nañ ci suñu sang bu ñuy dàkkantalee bàyyi ruqaya ku nu yada turam dëgg mooy tamim ibni aws addaariyi radiallahu taala anhu saxaabi bu siiw la lool bokk na ci lim siwee mooy xadis ju siw jooj waxtaanee masiixu dajjaal mm-hmm. moom mi nga xam ne yàlla gisloo na ko ko mm-hmm. xadis ju siiw jooy fekk ci téere xadis yi mm-hmm. yonentu sallallahu wa sallam di artu nit ñi ci fitna jooju nga xam ne mooy fitnaay dajjaal xam ne nee na yonantu bu fi mos a jaar mm-hmm. artu na ci aw xeetam mm-hmm. waaye détail yim ci joxe moom mm-hmm. kenn na mosu ko cee joxe ngir jege gum ko gën a jege ak fitna yi concerné gum ñu gën a concerné ñun ndax ala fokk ci xeetam yi lay wàcc moo tax daanul julli mukk dul ci jeexitu taayam dana ñaan yàlla musal ko fitnaay masiixu dajjaal ni muy ñaane yàlla musal ko fitnaay safara mm-hmm. ak fitnaay mbugalum bàmmeel mm-hmm. ak fitnaay dund fitnaay dee mm-hmm. yal nañu yàlla boole musal ci fitan yooyu ma zahara minha wa ma batan jëlee nañ ci Seydina Tamim bindi Aws ad-Daari radiallahu anhu mu ne anna nabiya mm-hmm. naka ki yàllay waxal mm-hmm. annabiu mooy ki ñu xamal mm-hmm. annabiu wala annabiyu baax na ku yàlla jox ay mbóotam euh, bu ko digalee mu jottali mbóot ya nag mu ñu ne mooy ar rasulu wala su fekkee shariya yi boppam la yore ñu ne mooy ar rasul mm-hmm. moo tax ñu ne kullu rasulin nabiyun wala aksa mm-hmm. bépp rasul nabi la mm-hmm. waaye doo ne bépp nabi rasul la waaye nabi nag moom buñ ko waxee jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sange rasul yi mu ne yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne qaala wax na ad diinu an nasihatu mooy nasiha hmm. diine yëpp kat benn baat bi ko tënk hmm. mooy an nasihatu hmm. wolof di ko firee laahee biir yonentu comme dañ koo joxoon jawaamiul kalimi fay wax benn baat mu tënk loo xam ne xajul ci téere yi àdduna ak bu waxee fokk saxaaba yi leerlu ngir mu gën leena leeralal ñoom xam nañ baatu nasiixa mm. lu muy firikat mm. waaye bëgg nañoo xam li ci yonent bi jublu mm-hmm. sallallahu alayhi mm-hmm. baatu nasihatu mm. boo doon xool baat bu mu tolloog mooy alxuluusu mm-hmm. sell waaw mm-hmm. dañuy wax ne cheyun naasixun mbir mu sell mm-hmm. maanaam cheyun xaalisun min al xish mm-hmm. lu mucc ci njar sow mbaa lem su fekkee njaruñ ko dañuy wax asalun naasixun wa labanun naasixun sow mi soow piir la kenn njaru ko naka noon tamit diiney lislaam dëgg-dëgg hmm. mooy loo xam ne lu sell la ci bépp caaxaan xor hmm. njaru ko fexe hmm. njaru ko wuri njaru ko diine ju sell la ñeel yàlla tabaaraka wa mucc ci bépp jikko ju ñaaw mucc ci bépp mbir mu bon borom ni zaahiram mel noonu la baatinam di mel mm-hmm. ni baatinam di selle noonu la zaahiram di selle mm-hmm. li muy wax ci biti moom la fas ci biir mm-hmm. li muy def ci biti moom lay def ci biir su loola wuutee rek mm. euh, sellut ak diine dem na kon ak diinu diine mm. nga ne aam ah, ne an nasihatu mooy laaye biir wala an nasihatu mooy hmm. sellal xul hmm. naa nun saxaaba yi nu ne hmm. ñu ne li ma ñeel kan sellal pour kan qaala yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax ne lillaahi sellal gu njëkk gi yàlla lay ñeel wali kitaabihi ak ñeel téeréem bi wali rasulihi ak ñeexal ndawam li mm-hmm. wali aimmatil muslimina ak ñeexal njiiti jullit yi wa ammatihim ak jullit yépp mm-hmm. mboole seen mm-hmm. rawahu muslim an nasihatu lillahi liman ya rasulallah mu ne mm. an nasiha mu ne lillahi mm. maanaam li war a njëkk a sell hmm. mooy sa digganteeg sa borom hmm. nga jaamu ko dëgg-dëgg jaam hmm. gëm ko ngëm gu mat sëkk gëm ne moom rekk a bind moom rekk lañ war a jaam moom rekk a mët ci tur moom rekk a mat ci melo gëmmi dogalam ak i jëfam xam-xam gu wér ak hmm. melloo melloo gu wér ni hmm. amul kenn ku xeeyoo lim xeeyoo ci jaamu hmm. moom rekk xeeyoo jaamu ni koy jaamoo ci biir mu sell rafet lool nga di ko ko defee ci biti walla ni nga koy wanee ci biti mu sell rafet lool nga koy wanee noonu ci biir kiy feeñal tawxiid ci biti di nëbbu shirk mbaa muy feeñal ngëm di nëbbu kufru hmm. kooku xees yéeféer moom la yàlla tuddee munaafiq hmm. yéeféer moom hmm. mbiram leer na moo tax alxuraan ba muy wax ci moom suratul baqara dafa ne inna alladina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yuminun xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adabun adim ñaari laaya rek seen mbir leer na jullit gi ko jiitu it mbiram leer na alladina yuminuuna bil xaybi ba ci muflixuuna seen mbir leer na moo tax compliqué wut waaye ba mu ñëwee ci naafeq nag wa min annaasi wa min annaasi wa min annaasi fukki laaya ak ñett bu ciy leeral seen i mbir ngir seen i pax ak seen i dugguwaay dafa bari naqadee xabar mm-hmm. moo taxit bu yàllay mbugal mm-hmm. yéeféer lu mbugalam tar tar mm-hmm. boo demee ca suufam fekk fa naafeq waaw aljanna nu mu gën a kawee gën a neex safara nu mu gën a suufee gën a metti te yàlla ne inna al munafiqina fi daraki l asfali min an naar ñoom ñooy nekk ca suufi suufi safa walan tajida lahum nasira lu tax seen dund yëpp yu xaadicuuna allah dañ leen wuta war yàlla alladina amanu ak ñi gëm yàlla te war yàlla ak ñi gëm yàlla mooy xiyaana gu gën a mag yàlla nag ne yu maa yuxaadicuuna baax na wa maa yaxdacuuna baax na waruñu woon illaa anfusahum seen bopp li ci garaaw nag wa maa yashcuruun yëguñ ko ki baax hmm. yëg ne baax na hmm. sant yàlla hmm. ki bon yëg ne bon na bon na de waaye moom xam na ne bon na waaye ki bon te yëgu dem ba yëgut ne dafa bon ba foog ne sax li muy def moo baax kooku mooy bon gi yées ci bon yi nit lu mu miin rek bu yàggee mu foog ne dara newut ci moo tax bu ñu leen gëm leen ni nit ñi gëme ñu ne ah ndax dañuy gëm ni sufahaaw yi gëmee yàlla ne ñoom rek ñooy sufahaaw yi waaye mm-hmm. xamuñ ko mm-hmm. ala innahum humu sufahaaw mm-hmm. walakin la yaalamun kon an nasihatu lillahi mooy sellal ak jaamu ñeel yàlla ci biir ak ne laa ilaha illa allah ni ko làmmiñ yu waxee noonu la bi fase noonu la ko cër yi di jëfe gëm ci xol wax ci làmmiñ jëfee ci cër moom la ñu al imaanu bil janaan janaan bu ñu kas bu ñu fataxaa jiim gi mooy xol bu ñu ko kasraa mooy mm-hmm. al janaan al imaanu bil janaani wa nutqu bil lisaani mhm. wal amalu bil arkaani mhm. mooy aljawaarix cëri mhm. kon laay biir wala sellal gu njëkk kan la ñeeleew yonantu mu ne yàlla wali kitaabihi ak téeréem bi kii alquran gëm ko gëm gu wér mm-hmm. ni waxi yàlla la mm-hmm. xaqiqatan mm-hmm. yàlla mu ne arrahmaanu allamal quraana xalaqal insaan kon doomu aadama la bind waa alquran meloo ma mos naa jur fitna wu rëy mutazila di wax ne alquran yàlla binde bindeefum yàlla du meloom Mm-hmm. na jooju mm. ka cay champion mm. yàlla préserver ci alquran ak pas-pasu jullit yi ci maanaam alquran ci pas-pas mm-hmm. mooy al imaamu ahmad mm-hmm. bin hanbal tëj mm. nañ ko ci dóor nañ ko ci bugal nañ ko ci waaye mu sax rek de booba su waxoon ne ah naa wax liñ wax rek donte gëw ma ko dana def musiba wu ku ñuy roy la mm-hmm. ku ñuy roy amul ngant li kiñ dul roy am mm-hmm. illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imaani kooku mm-hmm. ammatul muslimina ñoo ko moom waaye ki ñuy roy moom sañu ko su ko waxee rek ñépp foog na dëgg la kon nasihatu lil qur'ani wala li kitaabillahi ba ca njëkk mooy an taataqida annahu kalaamullah nga fas ne waxi yàlla xaqiqatan mm-hmm. nag mm-hmm. la majaas mm-hmm. ñaareel ba an tataallamahu nga xam lu ko xam gu wér ndax leetar bu jógee ci yàlla jëm ci mbindeef yëpp ku nekk ci mbindeef yi war nga xam li leetar ba làmboo xam lu ko mën koo jàng xam lu ko mën a xam li muy firi mm-hmm. ñetteel ba nga bari loo koy jàng mm-hmm. ndax yonentu wax na ne mm-hmm. ah, ki àndoon ak aji àndaale ak alquran la li saaxibil quraan waxul li qaari il quraan li saaxibil quraan saaxib mooy koo xam ne fu mu toll mi ànd ak yow xam ne buñ la gisul sax ne buñ la gisee te gisuñ ko sax ne la an sa waa mm-hmm. ki ñuy wax yowmal qiyaamati iqra warqa mm-hmm. jàngal nga yéeg mm-hmm. mooy nga xam ne alxuraan àndandoo am na koo xam ne da ngeen dajee léeg-léeg rek mën naa am ci jàkka ji mën naa am ci liggéeyukaay bi kooku jegewu leen jege gu tax nga koy yullil say mbóot mm-hmm. wala moom mu la yullil ay mbóot mm-hmm. am na koo xam ne nag bés bu set da ngeen déggante mm-hmm. mën naa am nga am lenn loo ko wax mu am lenn lu mu la waaye am na koo xam ne doo dugg ci lum yëgut du dugg ci loo yëgut ndax fu ngeen toll yéen ay nekk fu ngeen toll yéen a wax muy sa xaritu benn bakkan kooku moo la gën a jege moo tax mooy xam ci yow lu kenn xam mm. alxuraan yi noonu la mm. fekkee léeg nga jàng léeg-léeg doo jàng mm. ah, léeg-léeg nga xam dara ci ay mbóotam mm-hmm. léeg doo ci xam dara mm-hmm. noo ko gën a jege nag ba taqook moom alxuraan yu lil lay mbóotam nga nekk saaxibam mm-hmm. yuqaalu li saaxibi kon a nasihatu sellal ñeel téere bi mooy fas ne waxa waxi yàlla xam lu ko ba mën koo jàng-jàng gu wér mm-hmm. loo koy jàng mm-hmm. xam maani yi ak di leen settantal mm-hmm. waaw ndax jàng ko te xamuloo maani yi jàng ko te doo leen doo settantal maani yi ah doo doo mën a jëfe li yàlla bëgg di ndax xamagoo ko te boo xamee ba ci topp mooy nga jëfee imaam Ghazali mu ne xam mu ne jëf duñ ko tuddee jëf fekk àndut ak xam xam gu jurut jëf nee na ak ndox la waaw al amalu bila ilmin laa yakun wal ilmu bila amalin min al junun mhm. lu ci topp wali rasuli ah waaw wali yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mm-hmm. wa sahbihi wa sallam mm-hmm. gannaaw boo sellalee ñeel yàlla ci jaamu mm-hmm. sellal ñeel alquran ci gëm ak xam ak jàng ak settantal ak jëfe nga sellal ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga seede ne moom ndawal yàlla de gu dëggu gu wóor ci biti mm-hmm. ni nga koy defee ci biir mm-hmm. topp ko mm-hmm. jëfee li nga xam ni moom lay indi bëgg ko bëgg ko bëgg gi nga bëgg sa bopp bëgg ko sa doom bëgg ko say wayjur bëgg ko sa soxna bëgg ko nit ñi ñëpp ni mu ko waxee ci xadis gannaaw bëgg gi nga bëgg yàlla mm. doo teg kenn ci yonent kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. al nabiyu awla mm-hmm. bil muminina mm-hmm. bëgg ko mooy jur sopp mooy jur topp ndax nit mënta wax ne dama bëgg yonent bi ba pare te du ko topp imaam Shafii ne law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu mutiu woote bëgg yàlla te toppul ko ne mm-hmm. ko bëgg bëgg dëgg mm-hmm. kuy woote bëgg yoon te toppul ko mm-hmm. bëgg bëgg dëgg maanaam des na bëgg ko gëm ko topp ko xam lu ko ba mën koo roy xam lu ay waxam ba mën koo jëfee ndax boo xamul li mu wax doo ko mën a jëfee moo tax xam hmm. ni ngay xam loo alquran ba mën koo jëfee hmm. nan ngay xam loo ay waxi yonent ba mën leen a jëfee hmm. fexe it ba looy wax ne yonentoo ko wax wóor la ndax nee na inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala gayri nee na fenal ma nuróowul ak fenal keneen man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaadahu min annaar bu ku mu sosal te tayu ko hmm. na préparé barabam safara ñu ci yàlla boole mos tax looy wax ne yonantu nee na rek hmm. fexeel ba xam ne wér na hmm. su fekkee ne xadis la joo xam ne dafa dellu ci fadailul amal dafa lompañ nga leeral ne dafa lompañ waaye mën nañ koo jëfandikoo ci fadailul amal su dee xadis joo xam ne mawduu la wala dañ koo fenal yonantu sallallahu alayhi wa sallam ko tudd wala da koy tudd ngir leeral ne kenn waru koo jëfee loolu mooy sellal ñeel yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko sopp ko topp ko ay waxam jëfee ak i ndigalam waaye ay tereem sallallahu alayhi wa topp ay ndigalam waaye bàyyi ay tere mm-hmm. fexe ba lépp loo xam ne nii lu mu lu mu sib la su ko fekkee woon mm-hmm. muy albidaaw mm-hmm. nga teet ko jàggoon nañ man amila amalan laysa alayhi amruna fa warat lépp ku jëfee jëf joo xam ne suñ mbir mi newut ci wala amut ci suñ ndigal des ko koy delloo wax na ci xadis ne hmm. fa innahu man ya'ish minkum fa sa yara ixtilaafan kasiira hmm. ku dund ci yéen hmm. dana gis wuute gu bëri mu mel ni dañ ko laaj ne ko moo waay ni ñuy def bon fa aleykum bi sunnati mooy leen ci sama sunna sunnatil xulafaa yi ak sunna yi ñi ma wuutu ar rachidina ñuy woy jub al mahdiyiina ñuy ñuy ñuñ jubal mu ne tamassaku bi na ngeen jàpp ci loolu mm-hmm. wa abdu alayha bi nawaajisi ngeen matt kook seeni dëggeej mm-hmm. wa iyaakum wa muxdasaati l umuur te ngeen mm-hmm. wëtt sos ciy mbir fa inna kulla muxdasatin lépp luñ sos lu amul cosaan ci diine bidaatu wa kulla bidaatin dalalatu teet bidaa hmm. bokk na ci nasihatu li rasulillahi sallallahu alayhi wa hmm. lu la leerut hmm. ne ci yonent bi la soo ko mënta baña solo danga naan yurwaa wax nañ ne solo nañ ne nangam ak nangam waaye nga fexe it ba wérlu mooy tax nga mucc bul dugg ci li ñu bari di dugg léegi xadis neex la rek mm-hmm. nga dem dajale ay wax yoo xam ne mën naa am tegewuñ fenn mm-hmm. pour wéral ko mm-hmm. walla xadis bi dëppoowul ak sa xel rek nga ne xadis bi wérut loolu it duural ak sosal yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñàkk sellal ñeel ko la ñàkk sellal ñeel ko la wormaal sunna hmm. bokk na ci façon ngi sellal yu gën a kawe hmm. ñeel yonantu sallallahu hmm. alayhi wa loo xamul it nga dem ci ahlul xibrati fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun kon nag diine sellal la sellal ñeel kan yàlla sellal ñeel kan téereb yàlla bi sellal ñeel kan yonantu yàlla bi sallallahu alayhi wa bu ca topp wali aimmatil muslimina mm-hmm. sellal ñeel mm-hmm. njiitu jullit yi mm-hmm. njiitu jullit yi nag ñaar lañ ñi leen jiite ci wàllu nguur ak ñi leen jiite ci wàllu diine am na jamono benn lañ daa waaye dem nañ ba xaaj nañ ko lu ci mën a xew rek nga sellal ñeel leen Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox pouvoir mm-hmm. te ñuy àtteewoo ni yàlla bëggee mm-hmm. nga yoral nga leen ak digg yoral nga leen ak topp yoral nga leen tamit jëf joo xam ne sant nañ la ko nga di ngay liggéey ci ñoom moo xam ab ministère lañ la jox mbaa ab poste direction lañ la jox mbaa liggéey buñ la jox nga war koo taxawee wuutu leen ci yoral nga leen defe ko ni mu waree mm-hmm. dara du ca manqué mm-hmm. yoral nga leen fexe ba doo ca dugal lu ca war dugg mm-hmm. doo ca génnee lu ca war dugg bokk na ci sellal ñeel leen it suñ juumee nga laaye leen biir ngir ñu dellusi su fekkee ne am na luñ ñu war a def te xamuñ ne war nañ koo def nga xamal leen ko loolu nag am na ay niveau su fekkee koo xam ne ni jege nga ko mën ngaa wax ak moom muy dégg hmm. bul dem ca mbedd ma hmm. ndax laaye biir buñ ko defee ci pénc ma dootul laaye biir hmm. xaste la su fekkee nag ne ka jiite melul na mu war a mel te yow amuloo accès wax ak moom wala soo waxee ak moom it du dégg kooku jaadu na nga taxaw bépp taxawaay pour mu dellu ci yoon ndégam manifestation la ndégam marche la ndégam ndégam ndégam feeg du jur fitna ju gën a rëy ji ngay moytu bu dee njiitu jullit yi ci wàllu xam-xam ak diine sellal ñeel leen bokk na ci ñu ñaanal leen bokk na ci wormaal leen bokk na ci it dégg nga fexe ba lépp loo xam ne ni hmm. bàyyi nañ ko fa ci njàngale hmm. ñu jéem koo xamlu hmm. ngir ñoom ñoo ñuy jàngal ni ñuy déggee alquran ñoo ñuy jàngal ni ñuy déggee sunna si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal gi it euh, bokk na ci ñiñ ko war a defal njiiti jullit yi nga xam ne ñoo yore réew yi ndax ñoom seenug yéwén dana tax mbir yi jullit yi yéwén mm-hmm. waaye seenug yàqu mm. dana mbiru jullit yi yàqu mm-hmm. fexe yit ba njiit yi nga xam ne ñooñu indil diine ji mm. ñu joxleen leen worma ju toll ni buñ wax ci ñoom lu ñu warta wax ci ñoom mm. waaw jéem leen a tuutal te li nga dégg ne waaw kenn warut a topp diw diw lañu war a topp fekk la nga ci jublu mooy tuutal diw mm-hmm. ndax topp ñu benn borom xam-xam ngir jëmmi boppam mm-hmm. dañ leen topp ngir yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. leen topp ngir yàlla mm-hmm. léeg-léeg nga dégg ñuy toog di leen tudd eh, diw ñu tudd ab sëriñ waa ab kilifa nga wax ca loo xam ne eh, jëw lañ koy tuddee yonantu nee na jëw mooy zikruka axaaka bi maa yakrahu wax ci sa mbokk loo xam ne su ko déggoon sib ko loolu jullit yëpp ko bokk rawatina nag kilifaay jullit yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mm-hmm. waxuma nag jiitalu diw nangam la sant mm. wala jiitalu diw ci famille sàngam mm. la bokk mm. loolu moom jiitalu aadala rekk mm-hmm. mm-hmm. waaye jiitu daal niñ koy defee ci diine mooy xam ak di xamle ak jëf ak di woote nit ñi ngir jëf joo xam ne ni jëf ju baax la loo mën ci ñaanal ñooñee nga ñaanal leen mm-hmm. ñi jiite jullit yi ci wàllu àdduna yi loo mën ci ñaanal leen ci mbaax nga mm-hmm. ñaanal leen mm-hmm. Fudayl ibn Iyaad daan na wax ne su fekkoon ne benn ñaan gu nangu rek la ma yàlla may konoon buur laa koy ñaanal lu tax ndax bu xéwanee mbiru jullit yi xéwén su yàqoo mbiru jullit yi yàqu bu mujj bi mooy waa amatihim ak annasihatu li ammatil muslimin sellal ñeel mboole jullit yi mm-hmm. laaye biir ñeel mboole jullit yi mm-hmm. naka nga koy defee mm. dëggu ci jëflante gi ngay jëflante ak ñoom njaay mm-hmm. la dem jënd la ndem waxante la lu ngeen mën a waxante mm. fekk yow la nga wax mm. mooy dëgg moom nga fas yonentu nee na man xëccana fa laysa minna mhm. képp ku ñu njàpp maanaam mhm. képp ku ñu xot mhm. képp ku ñu ciit nee na bokkoo ci ñun bokk na ci nasihatu li amatil muslimin nga woo leen jëmee leen ci yàlla woo leen jëmee leen ci téere yàlla woo leen jëmee leen ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. woo leen jëmee leen ci rafetal seen diggante ak seen njiit mm-hmm. ci wàllu àdduna ci wàllu diine mm-hmm. xam nga bam ne a addiinu nasiha rek lay yëpp tënku ndax nasihatu woo jullit yi jëmee leen ci yàlla kooku bokk na ci nasihatu lillah Mhm. fonk njiitu jullit yi mhm. aimatul muslimina ak sellal ñeel leen mhm. kooku bokk na ci nasihatu lillah ndax yaa ngi koy def ngir yàlla woo jullit yi ñu def ko bokk na ci nasihatu ñeel yonentu bi sallallahu jëfee sunnaam dégg nga woo jullit yi ñu def ko bokk na ci nasihatu lillah sellal ñeel téere bi it ak woo jullit yi ñu jëm ci sellal ñeel téere bi mm. kooku bokk na ci nasihatu lillah mm-hmm. kon yëpp mu ngi delluwaat ci lam njëkk a wax rek ñu mm-hmm. addiinu mm-hmm. an nasiha woo nasihatu lillahi sellal ñeel ko ci jaamu ak ci lépp nasihatu li kitaab yi nga jàng ko xam lu ko di ko jëfee woote jëm ca nasihatu li rasulihi nga xam ko gëm ko topp ko sopp ko woote jëm ci njubam mhm. xam lu njubam woote jëm ci njubam mhm. nasihatul yaayimatil muslimine it mhm. nga sellal sa digganteeg ñoom ci topp gu tegu ci topp yàlla ko yonentam sallallahu alayhi wa ak warma gu tegu ci warmaal yàlla ko yonentam alayhi salaatu wassalaam ak woote jëm ci nasihatu li ammatil nga dëggoog ñoom mm-hmm. ci sa sa jëflanteeg ñoom mm-hmm. woole nit jëm ci yàlla ak lu yéwénal seen mbir mm-hmm. lu seen mbir mooy xamlu li leen yàlla xamlu loo jëfee li leen yàlla jëfloo digal leen baax te jiitu leen ci tere leen bon te gën leen ko sori ci kem talaayu sa kattan bu fekkee ne am nga pouvoiru mën leen a tereg sa loxo ni ki nguur mm. def ko man mm. raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi mm-hmm. su fekkee am nga kàddu fa in lam yastati' fa bi lisaanihi mm-hmm. su fekkee amula yooyu nag nga naqarlu ko mm-hmm. fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dalika ad'afu l imaani ni ko yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama waxee bokk na ci laaye biir walla dëkku ak sa mbokki jullit yi buñ la hmm. laajee hmm. loo xam ne bëgg nañ ca dugg te nga am ca xibratu hmm. nga wax leen lañ ca xam ci mbaax xataa sax ku bëgg soxna ñëw ne la man de dama bëgg diw wala nit ne la man de sama doom diw a koy bëgg loo xam ci moom boo xamee ci diw mbaax wax ko soo ca xamee leneen nit wax ko ndax soo nëbbee ayib bi kooku hmm. ba dugal ca doomi jàmbur hmm. lor nga ko te loolu bokkul ci nasihatu hmm, li ammati muslimina moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam ne wa man ashaara ala axihi bi amrin yaalamu anna rushda fi gayrihi faqad xaanahu képp ku junji mbokkam mbir te xam na ne mbaax ak njubang ci lu dul loolee mu junj ko xuruj na ko maanaam xor na ko kon nag diine lépp hmm. mooy an nasihatu hmm. lillahi hmm. wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa ammatihim yal nañ ko yàlla defal yaa rabbi hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim amin amin leer na